ndax ndam li day dem fële nga mbaaw wala day dem nga xamante ne mooy parcelle ci diggante ki nga xamante ne Boy Faye ak nga xamante ne mooy Zambala la ñoom ñaar ñëpp ay mbëru mbapat lañu arbitre bi daa ngi wax ak ñaari mbëri Boy Faye pare nga Zambala pare na arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé na 19 heures 27 minutes dimanche 11 décembre dimanche 11 daanaka boo xoolee 19 heures 27 minutes lañ sifflé combat bi Zambala ak Boy Faye Zambala seen càmmoñ Boy Faye seen ndeyjoor Zambala ak ak Boy Faye boo xoolee ñaari mbëri nag gëj na ñoo bëree Zambala ak Boy Faye cokkaas na Zambala ak Boy Faye Zambala ak Boy Faye Boy Faye na jël na ko lan mooy xew lan mooy xew Zambala ak Boy Faye hee na ko hee daan na ko daan na ko tëdd na oh! Sambala daan na ko daan na ko wala lan Sambala ñu dara amul Boy Faye nee na tànk bi Boy Faye nee na tànk bi Boy Faye xoolal ma waa Mbaaw xoolal ma waa Mbaaw dañuy bëriwaat dañuy bëriwaat Boy Faye blessé na na daa blessé nee na daa blessé xoolal ma waa Mbaaw xoolal ma waa Mbaaw hee xoolal ma lii xoolal ma lii xoolal ma lii arbitre nee dañuy ñëwaat jël amul arbitre nee dañuy ñëwaat jël amul nee na daa sifflé ba pare mu daan ko mais arbitre nee leen action bu commencé ci biir waaye wax nañ leen bu arbitre kii chute commencé ci biir action bi nañ ko bàyyi mu jeexee ci biti mais cey waa Parcelles waa Parcelles leeneen